mais mais quand même euh, euh, je maintiens que président Macky Sall yéen war na yéen war na leen defal mbaxuus ndaxte dëgg-dëgg. Euh, loolu <laughs> lu rëy loolu. léegi ma ñëw nag ci dernière il de deux minutes moom fast track laa koy tuddee dialogue léegi. Benoît euh, est-ce que ñaawul ñu toll ba fii euh, Sénégal yi nga xam ñu bëri déjà euh, comprendre ñu dialogue bi adhéré wu ñu torop ak yooyu ñu dégg ay ay problème xaalis moom la muy jaalo fii la ne tous les jours le dialogue est super coûteux dix millions par jour la ba léegi amagu benn wedd bu dëgër léegi nii nag semaine bi yëpp lu nekk ci presse bi mooy ñu taxaw di di di réclamer à corps et à cri lële nu mu tudd ay per diem ak ay ay ay ay ay ay ay ticket restaurant ak ay añ ak ay reer ak yu mel noonu est-ce que loolu quand euh, nekk na loo xam ne dina concourir à euh, euh, rafetal poliru image yu dialogue nationale bi ak ña ca yëngu. président de la République am yéene lépp lu ñu def ci réew mi. Mm-hmm. ñu koy pencoo di ci waxtaan après ku nekk indi ci sa loxo. di fàttaliku ni daf koy jëfee ci gouvernement bi di ko jëfee ci instance yi partage de responsabilité daf ko mës a gëm dafa di loo xam ne culture la ci moom pratique de gouvernance la ci moom euh, ba ko sénégalais yi dellowee ci bopp réew mi avec une très forte majorité boo xam ne mosu fee am 66 virgule 23 pour cent sénégalais génn voté jox ko 58 virgule 27 pour cent des voix kooku bu sañu bu ko neexoon ne damay def lu ma neex man lañ fi fal mm-hmm. mu ne déedéet dama am sama programme mm-hmm. proposé ko sénégalais yi mm-hmm. ñu ci kaw programme boobu ñu fal ma ci bëgg naa dajalewaat sénégalais yëpp ñu ànd liggéey loolu parce que loolu laa gëm ñëpp rafetlu nag euh, woote bi nga xam ne def na ko ci dialogue bi bien sûr ci réew bu lañ nekk ñëpp mun ñu d'accord ak yow am na ñoo xam ne bëgguñu réew mi dem kanam. Mhm. c'est normal ay opposants lañu. Mhm. dañoo jàpp ni euh, euh, réew mi bu jëmee kanam xëy na ñoom dootuñu am lu ñuy wax. Mhm. donc il faut ñu jéem a xajamal c'est de guerre. même si du loo xam ne man rafetlu ko mais c'est de bonne guerre. dam leen koy nangul. Euh, léegi dialogue bi. quand même tàmbali na bu yàgg. parce que damay fàttali ni. Euh, commission politique bi commencé na liggéeyam depuis mais mhm. donc ñu ngi dugg suñu huitième mois. Mhm. donc depuis boobu ñu ngi liggéey ci question yi nga xam ne euh, moom mooy laal affaire élection yi. Mhm. yuy laal affaire euh, démocratie ak liberté yi. ñu am ci ay consensus yu am solo. dialogue national bi yeneen composante yi nag doogay dugg. parce que bee moo gën metti bee moo gën a yàgg bee moo gën a gudd. bee moo gën a soxla. ay waxtaan di diisoo parce que xamu politiciens yi fu ñu daje ah bu ñu dégguwul élection mooy tas réew. Mm. te bu ñu génnee ci élection yi. donte lu dóor bi leer na metti na ah ñoom nee nañ gis nañ ci dara donc da leen di kay nangul déglul leen ne leen lan ngeen ci gis. ñu nangul leen ñu dem évaluer fichier bi. Euh, kii euh, euh, nu mu processus bi. Mm. Mm. pour que suba bu ñu amante lu ñu wax parce dañu am soxla pour dalal toujours nit ñi. d'accord alors léegi dialogue national bi ah, yeneen composants yi war a taxaw. man waxu xaalis yi muy dégg sax man dafa maa jaaxal parce que man mi fa nekk. Mm. toog dégguma problème yooyu. ah PDM yooyu déggoo Père Diène euh, je crois que abus la parce que euh, dama jàpp ni euh, pendant par exemple sunu commission pendant huit mois ay nit a ngi jóge Diourbel ay nit a ngi jóge ci ci tëkk yu sori ay nit ñu ngi ñëw deux fois par semaine bàyyi seen soxla bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp. Sénégal moo leen Sénégal ñor na leen moo leen ñor. mais quand même nit ki boo ko nee delloo ko paas est-ce que scandale la c'est pas un scandale ne ko am sa paas remboursé naa sa paas cinq mille francs kii jógee Diourbel nga foog jaar ci autoroute bi ak yooyu yëpp dépensé na plus de cinq mille francs pour ñëw mais pourquoi tamit waaw déglu déglu déglu xam amul benn espère yéen koy yi ñooy wax loolu que kenn waxu fa waxi xaalis waaw non ay surtout sincèrement xam nga bu leen déggu buy de mbedd fa am mm. ñoo xam ne yàqkat la am ñoo xam yàqkat bu ñu la nee mais kuy ñëw mën nañ la rembourser sa transport mais bu la neexee ne man jëluma am si sañ-sañ. Mm-hmm. man par exemple euh, samay transport wax dëgg yàlla. Mm-hmm. xam naa ni fu ma toll nii waruma di jël ay paas. Mm-hmm. mais dama koy jël quand même mayeeku fa. parce que xam naa ne am nañu ko ñoo xam ne soxla nañ ko parce que 5000 francs boobu euh, euh, matu leen paas. bu la neexee nga de soxlawuma paas. comme man. parce que j'ai les moyens de la faire am na ñoo xam ne am ñu moyen métti na. Mm. donc loolu yàqul dara au contraire day permettre nit ñi ñuy teel a ñëw nekk ci <coughs> euh, euh, ñëw di def seen liggéey di sawar ñëw chaque jour parce que. mun euh, nit ki mën na toll foo xam ne ñàkk paas ay retraité retraité mën na ñàkk paas jeune mën na ñàkk paas mm. ku liggéeyal mën na ñàkk paas ah. donc mais loolu dañ ko war a relativiser oh. nit ñi nag dañoo ñeme wax mm. wax buy yàq naan ay kan moo fa gis budget amul budget budget amul amul fa sànq lii naa ci journaux yi ñu ni ñu ni ñu ni <coughs> Fama Ibrahima Sagna wax na ne président ci affaire budget yooyu président Macky Sall il va faire il une surprise euh, waaw non la wax man maa ngi foog toog vraiment dégguma fu ma waxee pure surprise mm. alors damay ne mën nga di wax ci mbooloo moom abus mm. pour man budget abus la pour man per diem abus mais mais képp kuy bépp commission buy liggéey dañuy teg à disposition un minimum de ressources pour nga fonctionner ne serait-ce que boo leen def mais café bi ngeen naan mais c'est pas gratuit donc loolu la président ne dina mettre à la disposition de la commission des ressources pour que ñu mën a fonctionner budget question mën nga ko tuddee budget mais ressource xam nga sénégalais nu muy déggee budget dafa diis moo tax dañuy jéem a ñun bu ñuy wax ñu ñu ñu ñu wàññi leen affaire bi parce que gars yi ñu ngi koy déggee dafa garaaw waaw d'accord vraiment maa ngi dalal xel lu mu ñu fa nekk ay ah, nit responsable lañu <laughs> ay nit bëgg seen réew foog naa ni bu dee ut xaalis <laughs> bu dee xaalis leen tax a jóg bu foofu la ñu ñëw a na wala fu ñu dem def seen waaw sa cinq minutes moom rek sama sama cinq minutes yi euh, waaw euh, dama lay dénk naa la ko nga géreel ma ko euh, euh, ñoom ñoom waa waa kii ay ay ay forum civil ak yooyu ñoom Ibrahima Seck ak ñoom Babacar Ba forum du justiciable ñooñu xam ne ñoom ñi ngi ñaxtu ah euh, gis nga Birame Seck sax naa budde na keroog donc parce que dañu jàpp ne euh, daal c'est finalement un dialogue euh, de politique parce que commission yëpp yéen a fa ne faax toog xajaloo leen loolu en deux secondes dama jaar si leen parce que cinq minutes moo ma dese. <laughs> man du ma waxu kii Birame mais keroog. ba mu jógee xam ne gën naa dem wax ak moom parce que je ne comprenais pas fan la teg loolu ko mm-hmm. parce que société civile. toog nañ ñoom réunion seen réunion. Mm-hmm. ñoom seen biir. ñoom seen biir ñii dem ca sa ñii dem dialogue politique. Mm-hmm. moom ñu yóbbu ko fële. Mhm. ñeneen ñu ngi ci yeneen commission. Mhm. donc société civile c'est pas simplement forum civil ak ñi ngeen di dégg. mais y a la la société civile est largement représentée parce que mhm. organisation de femmes yi ngay dégg yëpp société civile la. organisa ñoom euh, euh, organisation faîtière yëpp société civile la. donc ñu ngi ci commission yëpp. et surtout am na ay commission yoo xam ne ñoo ko jiite ci bureau bi ñu ngi ci ñu ngi ci biir bureau bi. ci biir. d'accord. léegi léegi euh, ñoo la divisé léegi euh, euh, mais mais est-ce que yenn parti opposition yu mel ne ay PDS ak Abdou Mbaye ak ñoom seen ñoom Mamadou Lamine Diallo et cetera ñoom Sonko ñi nga xam ne dañoo dañoo gedd seen travaux dialogue gi ba léegi ni sentir leen ñoom seen absence lu mu leen yàqal wala wala lu mu leen yokkal peut-être. Sonko moom mu ngi ci dialogue bi. parce que mu ngi ci commission euh, politique bi. ah yónnee na moom Sonko. depuis huit huit mois. Ah. ku koy toogal mu ngi foofu. ok waaw donc mu ngi ci biir. Hmm. ña ca des neewoon nañ dinañ ñëw. Hmm. lu tax ñëwuñu nag seen responsabilité la. mais yàqul ñu ne dara. réew mi yëpp fu mu dajaloo di waxtaan. benn benn nit ne moom bokkul lan la mën a yàq. Hmm, d' yàq dara. d' accord léegi léegi euh, dialogue national dialogue politique léegi euh, man man ñaari termes yooyu moo ma euh, moo ma jaaxal est ce que boobu lépp war ñu ko dëxëñ si dialogue national rek la mooy différence bi. commission la. Mhm. am la ma la ne dialogue national bi huit commission la. Mhm. y a la commission politique et cetera. socio-économique environnement. Mhm. Euh, nu mu tëti euh, euh, ressources naturelles. commission synthèse ak beneen commission bi daf na kii nu mu tëti décentralisation ak territorialisation des politiques donc huit commission la. d'accord ñun ñooy commission bi nga xam ne moo yor les question politiques électorales léegi.